bon voilà suñu problème ak administration bi lenn la ñun depuis le 4 décembre dañoo dem grève lu tax ñu dem grève tout simplement que dañoo toogoon ba le trois décembre administration école bi envoyé ñu benn nouveau ne ñu day continuer fii jàngam cycle ingénieur c'est-à-dire day commencer troisième année déjà ñun première année lañ fi duggee te chaque année dañuy passé ak moins douze donc ñoom bu ñu imposer pour ñuy jàll ak moins douze déjà que ñu ngi jëlaat yeneen nit dugal leen pour ñu continuer cycle ingénieur bi ñun dañoo jàpp ni loolu tegul ci yoon te déjà tamit âge wu élève bi en question loolu tamit beneen problème la donc dañoo seetlu que article lu texte yi euh, respecté wu respecté wuñu article lu texte yi moo tax tey ñu dem hmm, grève ba léegi ñu ngi nii di interpeller autorités yëpp vraiment pour ñu. jël ay décision yu war pour ñu mën a régler situation bi te non xalaatuñu ko saa yi ñun neexee lañuy ñuy génne école bi parce que école bi école lu Sénégal bi yëpp la donc kenn ñu menacé ñun pour nañu na ngeen di génne école bi wala na ngeen di des saa yu ñu neexee nañ jël suñu bagage ñibbi suñu neexul nañ fi des parce que am nañ droit dem grève service sociale bi tëj nañ ko restaurant bi tëj nañ ko amul benn problème ñun dinañ fi des dund ak suñuy moyens et on va saa yu ñu neexee nag ñu jël suñu bagage ñibbi bu ñu neexee décréter grève ñibbi dem toog suñuy kër te laa dinañ xam sans élèves yi école polytechnique du am ba di wax waxu direction.